nee naa lees way ne naa lees waxul nee naa lees lees waxul nee chers amis téléspectateurs de Dakarnet bonsoir wala ma ne leen bonjour ça dépend ci heure ba ngeen koy seetaan gannaaw ba nu sante yàlla jullu ci yeneen tam bu tedd bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te kay sàkku ci yéen di ñaan yàlla mi am jàmm te ku mu may jàmm ku ne nga am jàmm yàlla nu yàlla sàmm yàlla aar nu yàlla yéer nu yàlla muccal ñu nee naa ko suñu borom suñu a baax Zawdié maa su nekk ñoom tamit ñoo ñu fas yéene ci li nga xamante ci la ñuy àndandoo ak ñoom ah les waxut nag su ngeen ko déggee xam ne lu nit ñi sañul wax rek man ak Zaw Dieng wax ndeysaan nee naa ko ndaanaan bi nga xamante ni tubaar fakala jàmbaaru joonu joonu bi laa ko tuddee l'homme fort bi xool ko borom barñi kenn du moom <laughs> aywa nee naa ko noonu lay ditee les waxul ku ko xamul dégg na ko mhm. nee naa ko muy émission bi xam ne tous les samedis di ngeen ko jot ah si seen plateforme télé bi xam ne tey ji tabarkàlla macha allah Dakar net ne leen ko jàllale ak tous les samedis ah incha allahu rabbi mais nee naa ko tey nag dañuy dugg si ay yoo xam ne dañoo am solo mhm. lii xew buñ na lees waxul wax lii xew si jamono buñ na lees waxul wax lii xew ci réew mi buñ na lees waxul lees waxul dafa ëmb lu ne nee dañuy jugal nag si suñu waaja kii xam ne tey ji duñ leen ko présenté te benn yoon muy ndaanaan si réew mi muy Omaro ak kan soxna ayda mu baax a baax ma soxna Aida nee na ko dama laa jox pommade bi nga diw benn yoon doyul nga diw diwaat mu daal di yokk te soxna Aida nee na man ta yokk rek la man si spécialiste lu sa xalaat <laughs> Zawdié loolu dinaa ci am xalaat ndax xam nga lu tax euh. Euh, soxna Aida moom tamit war nañ koo seeti ji ndax euh. tamit dafa wax lu rëy mhm. lu rëy li mu wax mooy Omaro nee na dafa diw benn yoon doyu ko mu <laughs> <laughs> mu dolliwaat xam nga moom li papa waxoon rek ndax nee na boo duggee ci restaurant ni damaa bëgg a jënd ñu jox la benn plat pour nga mus boo musee bu dee gore nga danga caa war a teg potu ndox rek te génn dem waaye comme Omaro moom joxoon na ko benn yoon te tamit waxoon na ko li ko ci mën a fekk kon dafa waroon yem ci li nga xamante ni mooy benn pomme at bi moom nee dafa ñëwaat del si jël beneen produit beneen pommade boobu moom la jël diw ko affaire yi rëy te moom comme li nga wax sànq rek comme luñ mun a yokk waaye mënuñu wàññi dina doy waar. mais a gëm. Mhm. ndax oh, ah grand Omaro ah, ah, ji <laughs> ne faa nga kenn du ko jeex fan yee passé na luñ fi gisoon. Oh, <laughs> du am na beneen bu duggaat aussi mel ni am na solo. doy na waar est-ce que doo ko seeti. man bañ a seeti man ñeent laay wut. <laughs> kon yow pare nga. man bu tool fii laa bëgg nee naa ko <laughs> noonu la demee. Mhm. ndax tey jii Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne nit day yor produit di ko jaay sax ñenn ñi ne baaxul. Mhm. ñenn ñi ne baax na. Mhm. te tey jii moom dafa firnde. dafa jox Omaro mu diw Omaro na ko joxaat ma ma utaat si la utiliser waat ba léegi guddi mu toll nii. xale yëpp Sénégal xam képp kuy xale bu góor song na soxna Aida lan moo waral léegi ñëpp di song genre ju mel ni soxna Aida ñëpp di ko ñu yor dafa baaxatul wala lu ma demee <laughs> naa loolu est-ce que du ma la ko laajaat parce que tamit euh, sa mbokku xale yu góor yi ñoom tamit euh, ndeysaan dañuy faral di gis euh, saa su nekk rek ñu ngi def lu mel noonu parce que tamit gisoon nañ ko fi ay jamono ci benn dëkk benn kooku tamit benn paala xaw ma benn maire waa moom tamit ñaam bi j'espère que ni ñam bi la koy defee parce que day jël ñaam bi moom xool ni yow li nga <laughs> ñaambi bi lay jël ni la waxal fi nga bëgg man ma yemale la xam nga kooku mm. tamit au moins mun na ni sax moom euh, ëllëg boo demee ba nga xam ne da nga bëgg a wàññi mun nga ñëw mu wàññi la mais tamit kii jaay ni la am naa luy yokk mais aw ma luy wàññi kon yow da ngaa war a gëm li muy wax nga jël benn au moins xool mais Omaro dafa dëgër fit dëgër fit gi weesuwul xam naa moom tamit da doon xel ñaar xam nga mun na ko yóbbee loolu parce que tamit mun na nekk di xel ñaar que ni lii su ma ko defee ndax dina toll ni ma ko bëggee wala du toll ndax ni ma ko bëggee nañ ma baal tamit ci kàddu yi waaye les waxut lañu wax lu nit ñi sañul wax rek ñun ñoo koy daal di wax xam nga ni loolu ci seen ci yéen la ëppee yéen ñi nga xamante ni yéen xale góor parce que souvent dangay nekk ak sa jabar en général nga gis ni sa jabar mii kat commencé na la yàpp xam nga mm. am na ñoo xamante ni loolu moo leen ciy dugal am na ñoo xamante ni tamit dañ kumpa moo leen ciy dugal est-ce que su ma defee lii lii dëgg la est-ce que lii niñ ko waxee noonu la amee xam nga ba mujjee indi seen bopp loraange parce que tamit omoro na ma yàlla baal waaye xale jigéen ñi tamit ñenn ñaa ngi koy daw de. <laughs> ah dinañ ko daw kañ yéen nag ah, gis nga ku mel ni omoro ci dëkk bi. Mm-hmm. suñu borom def ko muy liggéey ci télé am tour ci réew mi. pour man loolu bu du woon dëgg. Mm. ak omoro li mu bëri wax bëgg mm. weerante bëgg. débat génn na génn na bu yàgg. leeral ko ne du dëgg leeral ko. surtout sax mais boobu ba léegi. Mhm. soxna Aida ngi wax insister fi mu insisté insister. Mhm. teggiwul tànkam benn yoon. boo waxee mu a Omaro laaj leen ko pommade ba ma ko jox na ma ko def. te boobu ba léegi Omaro mu ngi toog na pip service teg ay tegle ay ñaari jiinam. Mhm. na patt boole ko organiser. ah peut-être kon ça veut dire que li soxna si wax dëgg la. Ah. dëgg man de loolu lay mën a jàpp parce que tamit comme li nga wax rek xam nga tamit am na millions yoo xamante ni boo ci nekkee yenn yi da nga koo war a dépassé mhm. surtout Omaro nga xamante ni moom daanaan la xam nga euh, dafa nekk koo xamante ni Sénégal du ma ni sax àdduna Sénégal yëpp dañ ko xam àdduna wërngal képp dañ ko xam kon am na yoo xamante ni ci nii boo demee ba di ko def danga war a xool après lim la mun a jural wala fi mu la mun a yóbbu est-ce que yaay dégg li may wax mhm. kon li nga wax sànq rek foofu laay ñëw daal di koy dëkk parce que soxna si li muy wax moom fu wóor la ko teg ba pare dafa génne pommade bi en même temps di ko wane waale ah. parce que ñaari ñaari ñaari pommade la ci jël ñaari po la ci jël moom wax na ko ci kii bi mais ba tey déggaguñu Omaro gisuñu ko mu wax gisuñu ko mu weddi ah kon mun nañ jàpp ni loolu moo am rek xam nga boo gisee léegi mhm. euh, télé yi yal nañu yàlla baal mais seetaan tàccukat yu njëkk yi mhm. ñooy doon ay animateur léegi moo tax boo gisee léegi ñu animateur yu bari léegi ñu di leen yàpp ci yenn yi mhm. tey dangay jël référence ñi fi nekkoon te nekk fi ay ndaanaan ba tey doo dégg genre cas yu mel nii wala genre débat yu mel ni ñu di leen ci dugal mhm. boo ci mel ni ku si mel ni am Pape Cheikh Diallo doo ko dégg ci genre débat yi boo jëlee ku si mel ni am Boubacar Diallo doo ko dégg ci débat yi léegi ku si mel ni ay ñoo ñu noonu rek ngay dégg ci genre yi ay yokk na ko wàññi na ko tubéy ji xumb na xumbun mais tey jii est-ce que tamit ñoom amuñu ay relation ak tey jii genre maire euh, soxna ku si mel ni soxna ayda di leen defaral si suuf ñoom pour ñu yokk promotion ñooñu. est-ce que demeewu noonu amuñu relation ak soxna Aida pour ñoom soxna Aida di leen defaral ay bagages si suuf ñuy yokk seen promotion promotion soxna Aida ndax léegi ku nekk dégg na soxna Aida ci àddina partout dans le monde. ah loolu mun na nekk loolu mun na nekk mais nag soxna ayda moom ginnaaw bi ma xoolee vidéo mi nga xamante ni def na ko man jàpp ma ni kook soxla na promo. Hmm. jàppuma ko benn yoon. parce que bi ñu ko gisee ñu ngi ko gis mu toog këram te xam nga ne li muy wax da cee dëggu ah. ku ci mel ni Omaro bu ñëwee tey jii nii par exemple comme li nga wax soxna ayda euh, jël ko pour mu yokk promoom moom moom di yàq carrière am isa mm-hmm. yaa ngi comprendre fi may waxee waaw man du ma jël promo kenn di ko yokk ba pare di yàq sama carrière du ma def loolu surtout boo nekkee nit koo xamante ni si ni adduna yëpp dañ lay seetaan mhm. te Omaro ku ne xam na ni ndaanaan la ah wax jee nekk nii rek mais ndaanaan la kon nag boo nekkee ndaanaan nekk jàmbaaru jooni jooni dafa am yoo xamante ni da nga war a jommale sa bopp am niveau boo <coughs> koo war a romb war koo dépassé benn affaire bu ñàkk fu la kenn warula ci dégg man loolu laa jàpp parce que tey jii ni ku xam na ni Zawdié Noir kenn du dox ba ni dégg na fi toj toj bu ñàkk fu la à part job gëm sa bopp daan sa doole loolu lañ la xamee am na détails yoo xamante ni ñun dañ ko war a jommale suñ bopp mhm. xam nga tamit du salteel deru animatrice yi ak animateur yëpp lay ah, salteel waaw waaw da da koy salteel laa bëggoon wax da koy salteel parce que xam nga tax da koy salteel buñ tuddee kenn ku nekk ci milieu bi rek day mel ni tudd na ñun ñëpp waaw xam nga li ma la mhm. moo tax kenn ku ci nekk li ngay def danga ko war a xoolaat segg ko saytu ko xool ko ba xam ne lii defa war nga ko def soo ko mun a def kon Omaro jógal sa bopp nga bàyyi sa xel bu baax a baax xam ne réew mi. Mm-hmm. ñu ngi lay seetaan Sénégal xale yaa ngi lay seetaan jeunes yaa ngi lay seetaan mag ñaa ngi lay seetaan ndax dégg naa si moom mu naan am naa vidéo taati taati neen bu génnagul pour bur bu génnee ngeen bàyyi ko xel. déggal ma jooju xam nga loolu. comme ça moo ko wax mm-hmm. am naa vidéo boo xam ne. Mm-hmm. yaramu neen laa ci def pour bu génnee ngeen bàyyi xel ne waxoon naa leen ko. en tant kilifa di wax loolu ci télé. en tant que kilifa waaw xam nga rek dama lay faral di wax man des fois damay toog ba yàgg naan eh, ci mujjug jamono lañ nekk parce que tey Omaro ku ko xamoon démb omoro ñu xamoon ko ci ay way omoro ñu xamoon ko ci ay cant muy way sëñ bu baax bi Serigne Béthio Thioune mhm. yàlla na yàlla yokki leeram ñu xamoon ko ci loolu kon nag tey bu jamono di dox di dox bañ gis omoro muy def yenn yi man damay toog. di xeex si euh, ay plateau. waa di xeex si ay plateau xam nga loolu. wa terre à terre quoi. di ñàkk sa bopp fula di ñàkk sa bopp classe. kon daal Omaro dañoo war a wax ni war naa dellu ginnaaw xoolaat entourage am xoolaat tamit boppam xam nga tey jii boo demee ba mu yàgg te xamoo fooy dem da ngay dellu fa nga jóge woon ndax dañuy faral di wax naan and yi bëri nañ waaye ànd boo dem da fay fekk borom kon moom na dellu ci àndoom toog ci rukkam xoolaat bu baax li muy def parce que tamit ngay tàgg yonent bi di way sëriñ beccu cuun jékki-jékki ñu lay gis ci yu ñàkk fula wala ci yu ñàkk fayda loolu du lu naay ndax aada aada boobu moom démb démb def na si sorti bu doy waar woo na soxna Ayda man mii woo naa aada moom mais jotuma ko mm-hmm. boobu mun communiquer ak soxna Ayda soxna Ayda leeral li mu waxoon dëggal ko taxaw fi mu taxaw bañ fa bouger soxna Ayda génn pomaati génn lépp wane ko boobu ab bi aadamoo di live démb la koy wan wax na nag day yokk nag la man mën ta wàññi nag bon sénégalais ku bëgg a yokkalu yokkaloo googu <laughs> xam naa yow moom dañ lay bàyyi nga dem seeti ko rek yàlla tere li ma yor doy <laughs> baadu ay ca ju jàll si leneen <coughs> man damaa tooy ma yor doy na yokkalu ma wàññilu ma lees <laughs> ah, waxul nag lañ wax bu ñu ne lees waxul wax lii xew ci réew mi bu ñu ne lees waxul bu ñu jógee cadre homoro teg ne dañuy dugaat ci cadre Boughazali mhm. xam nga ko mooy borom phobie yi mhm. Boughazali dafa am benn vidéo bu génne mhm. mu ne wóoy sama ndey woo yàqu naa mu ngi daw ci internet yi ñu ne benn gendre gendarme moo filmé vidéo boobu dugal ko ci réseaux sociaux yi en tant que député ñi ñi xam ne tey jii ñooy sunu ay kilifa ñi xam ne tey jii nu war a aar war a yiir war noo soutenir bu ñu demee bay dugg si ay phobie ñun baadoole fu nu jëm <laughs> fu ñu jëm jar naa laajte parce que comme li ma wax sànq rek loolu laay daal di bantuwaat parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoo ñoo am tur ci Sénégal ñi nga xamante ni ñooy suñuy njiit tey bu ñu demee bay def yenn yi wax nga ko kon ñun baadoo lay nan lañ war a def. parce que vidéo boobu noonu mu ngi toj Sénégal. waaw mu ngi lëmbee Sénégal en retour sax dégg naa ñu ne moom it dafa dem porter plainte. mais pour pour man porter plainte amul sax xam nga lu mhm. gis nga sunu borom bul man Bougazel de dama ko dama koo mere ñetti yoon. te lu ne fàng sax kenn du ko jeex ba mu doolee député de un dugg si faux billet man dama koo mere maanaam buur cere bu baado la moom ñax buur rek lay lay koy siim moom dama koo mere de deux mu toog na wéy nu may def ak sama njaboot maanaam ñi muy lor si faux billet amuñu ak njaboot moom moo yor ak njaboot te sa njaboot boo demee ba di leen dundal war na su war nga leen dundal si xaalis bu baax xaalis bu lew xaalis bu dagan ñetteel ba mooy ñu lay monote di la filmer ngay wax ay bêtises ba pare toogaat si internet ak télé di weddi kilifa moomul loolu en tant que kilifa. en kilifa moomul loolu wax nga sànq mais nag Zawdieng suñ xoolee léegi nii Sénégal fi mu toll nii ñi nga xamante ne ñu ngi dundee xaalis bu lew bëreetul. su ma la nee bëreetul mooy gis nañ fi cas yu nekk lañ fiy dégg gis nañ fi ñi nga xamante ne dañ leen di jiñ ay sacrifice ñu ñu leen di jiñ ay faux billets faux billet bi duñ ne guléet la parce que du luy soog am. peut-être kañ moom moo bees la xam nga lu gën a bees gën a siiw. ba en tant ab baadoola mu ngi si prison bi si dix mille francs faux billet dix mille ab baadoola mu ngi ci prison bi si faux billet deux mille cinq cent wala mille cinq cent mm. mais lan moo tax kilifa en tant que député yor faux billet ay millions tëdd un mois génn di doxi ji soxlam te baadoola ay nekk si prison si ay dix mille ak deux mille cent ak genn ginaar goo xam nga waykat bi way na ko nee na alal bu la jaral sa ngor te am na ñoo xamante ni jamono ji fi mu toll nii zawjee ñu bëri alal moo leen moo leen euh, nu ma koy waxee seen ngor moo leen gënal alal am alal moo leen gënal am am ngor xam nga jamono mooy dox mais ni jamono yu yi am na ci ñenn ñoo xam dañoo jël yoonu bon di dox ak moom am ñoo xamante ni ba tey nag li olof naan fa ndox doon taa ba tey boo fa demee tepp tepp yaa nga fa ñi daan baax ñu ngi baax ñi daan téye seen mille bu lew ñu ngi koy téye di ko dundee di dundal seen njaboot waaye ñi daan ñiy continuer tamit di def ay faux barina li ma wax sànq rek faux yi du geex waaye tamit ñi nga xamante ni si nii Euh, dañoo jàpp ni moom tamit lim def rafetlu wuñ ko surtout sénégalais yi rafetlu wuñu lim def comme li nga wax rek parce que njiit day wane yoon bu baax. parce que mhm. nit ki boo jiitoo dangaa war a jiite euh, wane lu rafet parce que ñi nekk sa ginnaaw ñooy tax am déet xaalis boobu noonu peut-être yàgg na ko yor peut-être yàggu ko yor ñun xamuñu en tout cas mu ngi ci loxo yoon dañuy bàyyi yoon mu def liggéeyam am déet. ah xam nga tey jii euh, sunu borom dafa am lu mu dogal. Mhm. ndombal tànk sunu borom a koy defal nit. tey ji à l'époque jamono yi euh, ku si mel ni Ablaye wadd boo daan gis ab député sa koñ da ngay da ngay fier da ngay kontaan ne man yaa léegi jamono bi ñu toll nii nguur gi toll nii da ngay dëkkal député sa koñ sax doo xam ne yéen dëkk yéen a dëkk ndax boo moytul mooy sàcc seen courant kër <laughs> député yi léegi dañuy sàcc courant kër ñooy sàcc téléphone yi kër yi ñooy defar faux billets yi mhm. da ngay dëkkal député si koñ lampe du tàkk sa koñ ba mhm. bon lan mooy seen rôle bi si ñun mhm. ñun lan moo tax ñu leen di fal dina leen yóbbu assemblée pour teg leen fa pour lan pour seeni ah mais léegi ñun baadoo lay ñuy gën ñàkk di gën a dee. la ma la waxoon rek xam nga Sénégal moo toll noonu àdduna bi sax mooy doxee noonu ñii am dañuy gën di am di dem ñii pauvre di gën a pauvre comme la ma waxoon rek loolu laay waxaat parce que tey jii nii boo xoolee Sénégal zawña ni muy doxee nga xam ni carrément baadoola yi ñu ngi gën di doon ay baadoola waaye richesse yi ñu ngi gën di doon ay richesse parce que dëkk bi ni muy doxee la xam nga ndeysaan waykat ba. waaye nga yuuxu Bougazelli wooy. <laughs> wooy dee naa. ndeysaan wooy yàqu naa. ay fu ma jëm. <laughs> sama njaboot duñ ko yóbbu sa koñ mbar ñi. <laughs> non wooy boobu. wooy boobu laa mënul mu ñu mel ni wooy. wooy dañ ko bett. wooy sama njaboot xam nga kuñ bett mun la kuñ bett mun la parce que dañ ko bett nag. xam nga loo fogewul zawñe mu ngi mel ni tey jii yow ngay dox dara bett la xam nga lu la bett mun la. cabar defal loo xam ne à tout moment bu ñu la bettee fekk bett la ci lu baax à tout moment bu ñu lay fekk fekk la ci lu baax dax tey ji salaire u député ku ne xam na ni mu toll. du cent franc du fukk ak juróom. bëri na mais lan moo tax mënuñoo yem seeni salaire bëgg lekk pep lekk pepet lu nit am lu nit amul bay dugg si mbirum faux billet ña nekk cent mètres gee si ay faux billet dix mille nañ leen génne ministre boo fi tëj damaa amee jabet damaa amee tension damaa ame hypertension. nañ leen di bàyyiwaat du yàgg léegi baadoola ya fa nekk ci ginaar ak ay nen omelette ponché. ñu jàppale tëj leen cent ans quatre vingt dix ans tamit nekk Sénégal san san li waykat ba waxoon rek xam nga doole moom moo mun dëgg loolu lañ wayoon am déet waaye tamit dëgg mooy mujj am waxuñu loolu en waa waaw loolu la rek réew mi moo toll foofu étape par étape la parce que man des fois damay toog ba mu yàgg may laaj ndax ñu si mujjug jamono lañ nekk wala parce que waaw parce que àdduna bi instant bi nii dafa tëradi hmm. ku yabu rek looy def na nga ko xam xam li ngay def xam li ngay wax parce que loo foog ni rek eh, looy def te foog ni nit ñi bàyyiwuñ la xel rek ñu ngi lay bàyyi xel waaye bés bu ñu la téye li nga xam ne lépp dëgg la. bon nijaay Bouga. boo ñu mënee jàppale rek. <laughs> Mhm. xanaa ñu ñaanal ko rek. ñu ñaanal la. Euh, sunu borom dafa bëgg. Mhm. nit ki li muy liggéey. Mhm. na ko ay faux billets day. suuxal am réew. faux mhm. day yàq am réew. Mhm. mu ngi mel ni tey nga fekk banque tegu nga taal banque bi. lool mooy faux billet. faux billet day yàq am réew tonton yi si yi nekk ci réew mi. dimbali leen jeunes yi si faux billet te wutal jeunes yi liggéey mais génnal si mbedd yi. je ñaata jeune fi nekk di taxawaalu. bëri na amuñu lu a liggéey. ak ñoo bëgg liggéey ndeysaan ay jàmbaaru jooni jooni lañ def. fajar la ñuy yeew ku jóge Padois ku jóge Tëngéej dox ba west euh, Padois wala dox ba Liberté 6 gàddu turelam gàddu teelam di wut 2000 francs ndeysaan léegi-léegi nga gis kuy jaay fii ndox doxee fii nii ba péage ba sorti mille francs ba di ci mbuus ñaata fukki dërëm bilaay mais lan moo tax ñëw soutenir jeunes yi nekk ci tali bi di liggéey di jaay ay ndox ñii di jaay ay gerte ñii di jaay euh, crevette ñii di jaay ay yu kenn xamul mais nañ soutenir jeunes yooyu gëm nañ seen bopp foo biyee yi am na fu mu xaj bilaay Sénégal ay jeunes yu gëm seen bopp jeunes yu bëgg seen bopp jeunes yu bëgg lu ñuy def ñoo fi nekk mais li nguur gi fi nekk ñoo jàppalewul jeunes yi nguur gi ñoo taxawul jeunes yi nguur gi ñoo soutenirwul jeunes yi mais jeunes yi ak ñoo bëgg liggéey génnal si biti na damay casting fii dina fees del axi dit ndeysaan loolu dëgg la loolu dëgg la mun naa koo findeel parce que Zaw Dieng da lay leer ni boo duggee oto rek jaar si péage bi ndeysaan ba gis xale yu jigéen ñi ay xale yu ndaw ngay gis ñuy daan seen doole xam nga ñooñu soxla nañ ku leen jàppale xale yu góor yi tamit ndeysaan bàyyiwuñu dara lu nekk dañ koy téye di ko jaay ñoo ñooñu soxla nañ ndimbal ah nañ leen gestu bu baax parce que ñoom tamit ci dëkk bi lañ bokk ndax nee nañ euh, wërsëg du tuut waaye bu la yàlla mayee wërsëg da ngay gestu ki nga xamante ni moom mm. yàlla may ko wërsëg wala dooleem loxoom jotul ginnaawam nga di ko bàyyi xel loolu moo ëpp sens euh, yii ñuy def nii ay ñu jàll ci ni lay demee lees waxul fii ci Dakar net ah. almaa tabarkàlla macha allah site internet bi xam ne moo lëmba réew mi saf la ma naan liw bi la di koy xam. waaye nag caba. Euh, mhm. nit lépp lu muy def nga gëm boppam. Mhm. la mhm. baax yi ñoo bokk heure waaye yi daw rek a tax ñuy wax. te dafa am benn ancien militaire. xaw ma sama classe la xaw ma du sama classe. nekk ci internet bi doxaan xale yu jigéen yi boo accepté yónnee ma sa vidéo nga simmeeku ibbil Mbàkke Njaay mhm. sinab ko yónnee ma ko boo ma ko yónneewee ma am nu ma defak ak yow jigéen ñi di ko yónnee mhm. ba mu jël ko transféré ko aadamoo ba jàpp nañu waajooju lan moo tax xale yu jigéen yi manquant kunkan wayati doon aw ay waya waya waya waya ba bëgg xaalis sa bëgg xaalis ba ko jot chantage leen pour lan <laughs> Zawdié laaj nga lu am solo te loolu dinaa sawar pour tontu la ci xam nga lu tax ma ci sawar mhm. parce que ñenn ci xale jigéen ñi léegi dañoo gëmatu seen bopp na ma yàlla jéegal mais gëmatuñ seen bopp barki yonent bi des fois da ngay rusa sax nekk jigéen xam nga lu tax ngay rusa nekk jigéen mm-hmm. waaye tamit des fois da ngay am fierté nekk jigéen xam nga lu tax mm. ndax ña daan baax démb ñu ngi baax ba tey est-ce baax ngi am tey la baax tey la gën a am a ngi am a am ci a am baax a tey la gën a am man da dama xam ne léegi comme fataay complet dafa yomb lool ci net bi di <laughs> ci ñenn ñi del wax ci ñenn ñi parce que tey jii ni zawjee xam nga tey jii nit man dama foog ni xel xel ci nit yàlla bu la bindee daf lay bindaale ak xel mhm. nit ki looy def lu nekk da nga war a xalaat avant nga koy def mais xale jigéen bu buñ xësee am na ci ñenn ci xale jigéen yi parce que tey nii boo fi waxee xale jigéen yi wax bu ëpp mun nga génn ñu mere la wala ci mais man li may xooluma ku ma ci mere xooluma ci ku ànd ak man damay wax li nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi parce que ci am na ñenn ci xale jigéen yi ñi nga xamante ni sii nii iPhone borom ñetti bëti jaral na leen lu ne diggoon nañ la ko fi de yaa ngi dégg li ma lay wax bañ ma ko diggee itam jot naa ko waaye ca na ma ko jotee lu lew la man nee naa la lépp lu may jot te loo xamante ni si ni day ànd ak chantage rek du ma ko laal bëgguma ko man five laa gëm daan sa sama doole joob yow xam nga ma dëgg du dëgg waaye tey nag da nga wax débat bu am solo mbokk jigéen yi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan war nañ ci jàngat parce que Zawdié man foog naa ni ki la bëgg du la woo téléphone naan la wan ma sa ween wala wan ma sa awra góor gi la bëgg wan la ni kii dama laa bëgg. mais appel vidéo dafa xew nag. appel vidéo bu xewee appel vidéo du mus a xewi. waaye booy man daf maa yomb nag man dama ko bëgg <laughs> j'aime appel vidéo. xam naa bu ñu xoolee ba ci biir sa waajooju est-ce que du doon yow. <laughs> appel vidéo dëgg la dafa xew mais tamit dafa xew warul tax nga jël xew gi boole ceeg leneen loo xamante ni bokku ci. parce que xale yi jigéen ñi léegi ñu ci ëpp gëmatuñ seen bopp. Mhm. da ngay woo jigéen gëmloo ko ni maa ngi fële lan mooy bitim réew. dara moo kër Mbaye Fall yem. moo kër waaw daal loolu rek <laughs> moo kër Mbaye Fall yooyu. lan mooy loolu mais xale yi jigéen ñi boo leen nee damay jël avion rek ñoom pour ñoom yaa milliardaire nga. Mhm. pourtant nit mun na tukki nit ki nekk fii nii Sénégal. lu waaye andi jëlee Europe boo ñëwee ma wecci la. très bien dégg lu waaye boo ñëwee ma wecc la. waaw xoolal loolu lu boo ñëwee ma la incha allah <laughs> suñu borom dogal na loolu. ndeysaan moom yàlla may na la ko loolu moom dëgg la mun naa ko firndeel waaye tey tamit zawuñee li ma lay wax sànq rek dama nekk si lu am solo ma bëgg ñu yaatal ci parce que loolu tamit war nañ ci yaatal yee ñi nga xamante ni ñoo ñi seetaan mhm. parce que man mënuma gëm ni nit ki ni la dama la bëgg zawñe di la woo appel vidéo mhm. nit bu la bëggee di la woo appel vidéo foog naan dina la wax leneen su la yeddul wala mu lay yee warul jël wax ju bon wala di jël ay vidéo yu bon di la ko wan pour yow nga yëg loo xamante ni si nii retour bi dangay ngay jël ay vidéo yu bon di ko ko envoyé xam nga te xale yu góor yi léegi bëggatuñu mm, bi bëggatuñu dañuy xemmem mhm. buñ la mais dañuy ñëw am luñ ut si si yow loolu ñu ut si buñ ko amul dañ la fay bàyyi dem uti ko ci keneen mhm. yow mi jigéen nag yaa war a am fulla am sa fayda am sa dignité xam yaay xam yow yaay kan xam fi nga bokk xam fi nga jóge ndax dañuy faral di wax naan judd bu rëy ndey ak bàyyi waaye fulla ak fayda yow ci sa bopp mhm. am déet waaw kon nag nit ku nekk fulla kenn du la ko utal sa yaay du la ko utal sa papa du la ko utal sa papa ak sa yaay judd lañ la mun a jox mais mënuñu la jox fulla parce que tey jii nii su ma xoolee ci sama bopp rek damay sawar di wax parce que tey su ma nee man Mbour laa dëkk ñëw dakaar di liggéey si. Ah. kon peut-être war naa sama papa ak sama yaay fulla ak fayda bañ mun ma bàyyi ma ñëw fii di liggéey. Mhm. am déet kon fulla fulla kenn du ko utal kenn. mukk ah mukk mhm. léegi man dama euh, ci sa mhm. ba pare vidéo yi ku koy jël. boo yónnee awra ba pare. li ma si gën a metti mooy aadamoo dof gi mu doon. kon gi mu kon ñàkk weer gi mu ñàkk wér wayadi gi mu wayadi weesuwul ku jël awra yónnee ko ko naka aadamoo publier mm-hmm. maanaam moom mooy nituk saytaane gi nituk safaar gi <laughs> nit ku bon ki mm-hmm. ba jël ku ci caba rek may yónnee sa vidéo moo woo aadamo alors jël vidéo bi yónnee ko aadamo aadamo moom mooy golo gi mm-hmm. moom mooy publier luñ ko yónnee moom mooy soo naan guddi gaay rendez-vous vingt heures kaa bu doy waar kii dinaa ibbi dinaa tëj dinaa nangam kaa am na maanaam Adamo ci cas yi lay jël di ci profito di ci liggéey ci kaw Sénégal ba télé yi nekk si Sénégal di wër Adamo maanaam Adamo télé Sénégal def na fi nekk na fi benn star boo xam ne benn pënc boobu gis naa ko barki démb Sidy Diop en tant que waykat di seenam naan kaan Adamo Adamo naan di jibboo nañu léegi mu waaw léegi jibboo nañu en tant que star gën a gën a nekk ëpp talent kii dax koo way du waykat du dara mais def nañ ko fi benn star boo xam ne ku am kaa moom ngay woo ku bëgg saaga moom ngay woo ku bëgg lan Adamo est-ce que am na dina yow am na ñaanu wayjur waa mun naa am ñaanu wayjur mais tamit alko tam mun na koo dab parce que tamit xam nga Sénégal dañuy jaay nit ba mhm. pare Sénégalais yi ñoo dooleel Adamo mhm. ñoom ñoo ko dooleel xam nga nit buy def lu bon taxaw naan mille cinq cent personnes la bëgg ñu seetaan merci xam nga nit buy def lu bon nga di ko dooleel kon day foog ni li muy def dafa baax mhm. waaye nit buy def lu bon nga toog wan ko ni lii ngay def baaxul bu ëllëgee du ko defet mhm. waaye Sénégal yàkkamti nañ aada moo joxe rendez-vous ni vingt heures pile ba ku nekk uti connexion boo ko amul sa da koy lebi ji fa seenee dugg jàkkaarloo aada moo muy wax loo xamante ni si nii du wax bu rafet waaye nag benn côté da ciy baax xam nga tax man la benn côté da ciy baax xale yi jigéen yi aada moom mu ngi leen di yar ci benn côté mais nag yar bi ba tey man damaa gis ni xale jigéen ñi tey lañ gën a yàq. Thiaba yar ak xaawi sutura c'est pas la même chose. tey soo déggee ma ni la yar mooy. parce que tey ji man dama foog ni toogoon di seetaan gis aada dugal vidéo jigéen jigéen ji def naka sudul noonu xam nga. mu dugal ko est man su ma toogee waruma jàng ëllëg ba tey su ma toogaatee beneen yoon war a def lu xalaat ni ah man ka su ma defee loo xamante ni waruma ko def est-ce que su ci aada moo jotee duma def comme ni mu def xale bu jigéen bi mais xam nga tey jii vidéo yi tey jii nit ku su ne nit nga tey jii nit dina simmeeku toog këram sinap boppam xool ba mu mbaa sinap def si téléphone am cama da ngay nekk sama xarit na ma aal ma sawjee ma woote ma aal nga jël sa vidéo yow bi nga defee yaramu nen envoyé ko sama bopp envoyé ko Adama vidéo yi génn yu bari noonu lay génnee waa loolu mooy waral bon ndaxte zawjee foog naa ni jël li nga wax xam nga loolu nekkul lu baax waaw sa xarit yow ñii tey ji nday jaay bandaya xaritam moo ko yoole moo génn vidéo moom moo ko génne waaw keneen ak keneen seeni xarit ñooy génn boo ana xarit ana lan moo tax nit di fréquenté ti nit euh, même pas xarit sax mais loolu tamit man su doon man sax ma yoole la parce que tey jii am na loo xamante ni zawjee dafa rafetul hmm. rafetul si gis-gis waxuma la ak si dégg-dégg yow nit ki doomu aadama yàlla bind na lan ngay mun a toogee jël vidéo ah, jël sa téléphone mais tamit am nit fii ñu gën a jongama rek fi nekk boo mësta gis sag dungu nag doo filmer sag dungu loo jongama jongama gis nga ku la gën a jonga te taxul mu def loolu mais seetu seetu pour lan la amul seetu <laughs> bu amul seetu mu wari ko Sénégal mënoo dugg ci benn kër te kër gi kër lëmu amul seetu yaram mu ne di wër seetu ci kër mais sans départ mais loolu sax au moins mun nañu moo tane mais tamit yow nga def ni la sa yaay juree woon jël sa téléphone mais loolu dama ni loo ci am nga jël ah, lu la aada moo def dagan na mais aada moo lenn rek moo yàq ay waxam saaga yi Adamo da ngay gis muy wax ak ay kilifa diine di saaga loolu nekkul respect. te taalibe Cheikh da daan way dem. moo tax mu la. waaw moo tax ma sànq sànq moo tax ma ni la dafa alku ndaxte des fois da koy gis muy dugal ay vidéo di fowee tarixa Cheikh. tarixa Cheikh kenn du ko fowee. kon nag mun naa ne Adamo day waaj a alku bu alkuwul tam mu ci yoonu alku yaa ngi dégg li ma lay wax. bu baax waaw kañ. bon ñoo ko déggandoo. Euh, sista Thiaba li mu wax am na solo loolu tabarkàlla macha allah. la ma naan lii duuf ci nag bi daanaka xajoon ci cin li te liw bi liw bi rek euh, ngelaw li la Dakar net nag nii kese lañ koy defee ak yéen lees waxul la ñu wax te bu ñu ne lees waxul dañuy waxtaan liy xew société bon yéen xale yu jigéen ñi suñu ay sœur suñu ay yaay suñu ay mbokk ngalla gëm leen seen bopp jigéen day gëm boppam jigéen day valoriser boppam jigéen day xam moom mooy kan ndax jigéen mooy jur wàlliw jigéen mooy jur xut bu sama jigéen mooy jur kay jiite sa jàkk ji jigéen jur kay toog sa taatu garab ga waaye jigéen jur kay naan attaaya jigéen ay jur mandikat ba mhm. léegi nag yaay choisir kan sa bëgg a jur te boo bëggee jur wàlliw ah da ngay nangoo oyof doon mbaxana boon jigéen ñi sama mbokki jigéen samay xarit samay soppe samay am di jàmm yal na leen yàlla teg loxo yàlla soppi leen yàlla jubbanti leen ba tey ji la bëgg ci ñi amul ay boroomi kër yàlla may leen boroomi kër. amiin amiin célibataire VIP yàlla soppi leen. amiin célibataire yu góor yi yàlla dimbali leen. ndeysaan ca ba bàyyi naa la nga tàggoo <laughs> tàggoo ñu la neex. ay ci mu ngi noonu Zawdié amati naa mbégte rek ak contentement ndax nee naa la yow ndaanaan bu mel ni yow di toogee yow plateau rek loolu contentement la may def barki unité bi waaye di jaajëfal ñi nga xamante ni saa su nekk rek ñoo ñuy topp ci suñu émission bi nga xamante ni mooy lees waxut lees waxut nii lay demee tous les samedis la ma ci ànd ak Zawdié ñu leen di indil ay xibaar yi nga xamante ni si ne nit ñi lu ñu mënul wax rek wax naa leen ko sànq ñun ñoo koy wax leeral ko fang daj ko waaye fii lay xewee fii ci Dakar net ñu koy waxtaanee di ci àndandoo ak yéen saa nekk rek comme li ma la nii lay demee demee dañ leen di jox rendez-vous rek xam naa ni li ngay faral di wax naan wax waxaat taxut a bëri wax waaw leeral ay wax doongu la te liw bi liw bi ngalaw li la liñ koy waxee noonu léegi dañ leen di jox rendez-vous dig dajee di leen wax beneen samedi mooy dàq fii ci biir beneen si a a kii nu tudd sax non dañuy tourné ba pare si kii nu tudd daanaan ba sii di defee borom Mbour sii di defee ba ca tàngërëm ñeel na sii di defee borom Mbour kenn du neexa fekk Mbour nee na bu ñëwee dinañu teral de bàyyi nga lool ku la fekk Mbuur nga teral ko te nee ko nag bëgg nga ñoo jàpp ci émission bu mag da siy jàpp Siri Lafe da siy jàpp sponsor ah, mu tudd di sunu waaja kenn du moom seen cargo seen cargo ndeysaan maa ngi bi maam Thierno dafa war a ñëw a ñëw ndeysaan yaa Issa Couture deux fois ciseau d'or cantaak ngërëm ñeel na ko ma sol ni moo ko ñaw neex a fekk West Foire yaa Issa Couture borom West Foire maa ngi lay kontaane bu baax a baax di la ñaanal jàmm deux fois ciseau d'or la jël kenn du yow ci réew bi gaaw ci man gën ci man laa ko dippe sama appartement mi nekk West Foire moo koy fay maam Yacine Ndiaye Mapis madame Silla cantaan ngërëm ñeel na la bu baax a baax borom dollar yi ci man borom pound yi ci man maam Yacine Ndiaye madame Silla chéri Omar Silla maa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm sama bon essence bu am sama oto moom a koy jox mm. maam Yacine Ndiaye maa ngi lay ziar Baye Cheikh Pro maa ngi lay kontaane di la bëggee di la ziar di la wax baay baay ba beneen yoon lees waxul fii ci Ndexaar Net wa kutubihi wa rasulihi amaana yal na nu yàlla sàmm yàlla aar ñu yàlla yër ñu yàlla mucc ay love you too nee naa lees wayi ne naa lees waxul nee ne lees lees waxul nee